mbokk yi nuyu nañ leen jaajëfal leen am kontaan ak mbégte ñu ngi fii ci arène nationale. tey nag li traditionnel lu musul am ci làmb mooy dajale ñi nga xamante ne ñooy les dix ténors ñu ràññee leen ci lutte traditionnelle ñu tegal leen mise jox leen avance ku ci nekk cent cinquante mille mise bi ñu tegal leen six xale yi war a ñàkkante war a wane seen bopp ci wàllu làmb bu ñu tuddee Serigne Ndiaye 2 tudd Géant bu Barli tudd Caaka Fay tudd Libidor tudd yeneen ndaanaan yoo xamante ni ku mel ni fils de Batlen Sidgi tudd euh, Toubacouta tudd ay xale yoo xamante ni ñoom ñëpp dañoo def liggéey bu am solo ci rite traditionnel mennum Émine François Gomis la ñu gisul te mbokk yi ku ci nekk dinañ dem ci moom laaj ko nan la ñëwee def ko ni ñu koy defee ci bëre dóor koy njëkkee ci caaka Birame naa la ngi lay fay maa ngi sant yàlla nan nga ñëwee waa compétition rek comme ni ñuy ñëwee chaque jour mais tey moo si def quoi. mais compétition tay bi dafa mel ni ute naa ak yeneen compétition yi diis ponkal la ñu jël def tirage mu am poule A poule B kan nga am. waa man suma poule poule B laa bokk général laa am defe naa ak Libidor ak Toubacouta fils de Batlin waaw. loolu est-ce que du métti ci wàllu préparation ku nekk xam adversaire non non loolu du métti du métti parce que comme dab la rek lambu la rek ñun miis nañ lépp ci lambu quoi. waaw jaar nañu chef de l'État jaar dara CEDEAO kon lii mënul metti du yomb nag mais yëpp affaire góor la quoi waa di gërëm nag suma grand spécial Pierre Ipen Fatick daf ma jëndal ay tiset yu bari waa vraiment dafa def lu rafet ak Adama Diouf aussi conseil yi ak lépp quoi ak gars yëpp boo xoolee fii yëpp ñoom la waaw waaw. macha allah bonne chance quoi. merci beaucoup. ndeysaan kaay. doomu baa ngi noonu ci loone. waaw naa la doom day maa am jàmm baax waaw sant yàlla bu baax anak samay mbokk anak waa bool ñu ñaanal ma yëpp ma ma ñëw war defante tey bilaay jom fit fu la fayda rek compétition bi dafa uteeg yeneen compétition yi mooy dañoo xool dix ponkal yi nga xamante ne ci lutte traditionnelle bi def nañ ci seen i ñu jël leen dajale leen boole leen ci ban nga bokk poule A bi wala poule B man maay poule A man xaw ma sax. waaw li def. walaay xaw moom. préparé waajal rek mais waajal ma oh. daan mbëri maa koy def mais sama bopp moom waajal naa ko. yaa Allah. ñooy njëkk ku ma am. Oh. walaay. yow daa mel ni ak Serigne Ndiaye 2 yéen bokk poul. ak kan. Toubacouta yéen a bokk poul. non non bokk kon xam nga ñi nga am da koy bañ a wax. naa la mbër jàpp naa la waaye am na solo kaay léegi noonu ndeysaan gis nga ko. doomu Malika baa ngi noonu ndeysaan. noonu ndeysaan. jeex nga noonu doomu Malika bi doomu àll ba ay ñaax yëmbal laay benn baraak ak fan ak buun no ak Kër ak montagne bëbës ak waa Kër Masar ci ak waa xama ak waa Diamaguène yaa may dégg ak waa Samsam ma fi yaa bi dafa yaatu foofu yëpp mënoo faa dëkk fenn nag naa Mohamed foofu yëpp samay secteur la billaay wallaay. tey noo ñëwee. waaw ñëw ak xel mu dal ñëw ànd ak sumay xarit. ànd ak sumay mbokk ànd ak sumay am di jàmm. ñu yeb ma dooleel ma ñëpp nekk suma ginnaaw. ñaan rek yàlla suturaal ma. poul A nga bokk wala maa ngi poul B. man la Fils de Badlin. Touba Kouta. Libidor ak Thiaka Faye. neex na wala ñun lu métti amul ci ñun ci làmb. man su ma duggee ci làmb amul luy xale laa quoi te damay liggéey macha allah. waaw c'est normal ñu waaj. <laughs> c'est que dañuy tàggatoo quoi xam nga si tamit bu ñu tëj mooy loolu noonu yaa ma gën a xam mais mooy loolu dañoo dañ koo meññ sax mais li ñu waroon waajee dëgg waajuñu yàlla xam na loolu. waaw am nañ contentement gaan di waaw di rafetlu lii quoi di la sant yooyu it baa jëlee mais da ngay toog ba guddi def yow caytaar nga. ndeysaan mënul ñàkk Ndeysaan Serigne Ndiaye deux noono noonu ngay tekki jaaj yi daa mel ni mooy bëre Ndeysaan ouverture bi ci tournoi bi tekki na téere yi Ndeysaan tekki na mbaxana bi ndeysaan ay mbokkam ñëw nañ paa bi sol bolog bi rek xàmmee ngeen ko fu ne la ànd ak Serigne moom daal xanaa xawma ma fan la moom waaye dëkk boo dem fekk nga ko fa ndeysaan di làmb la bokk ñu ngi koy takkal téere ci tànk bi moom Serigne Ndiaye ma ngay takk ma ngay daw gis nga bukki ndangaan tamit moom mooy adversaire u Serigne moom bukki bukki ndangaan nag bu ñu ko waxee bukki moom ñëpp xam nañ ko Ndeysaan ma ndeysaan Serigne jaay joxe na loxo ba Bouki Ndangaan moom ma nga ci cimee kaay tey compétition bi day nekk compétition bu métti ndax ñoom ñëpp xamante nañ ku ci nekk xam na ki mu war a am muy Bouki Ndangaan muy Serigne Ndiaye 2 muy Libidor ndeysaan ñoom daa mel ni ñooy poule A ndeysaan ku nekk sa problème ku nekk ak sa problème ñu ngi noonu ci premier combat bi ci compétition bi muy poule A dox ci diggante Bukki Ndangaan ndaysaan Bukki Ndangaan ak Serigne Ndiaye bu Faas Bukki Ndangaan Serigne Ndiaye mën nga dégg deuxième qualifié ci demi-finale. ndeysaan. donc boo ko ñu si naan fa. Euh, ñu ngi noonu ñoom ñaar. ñu ngi noonu. première poule li arbitre bi wax di Malick Ngom ndaysaan mu bokk ci juge ma nga fële ca table ba toog wax na poule A bi ñi nga xamante ni ñoom ñoo ci war a daje combat bi njëkk bee ngi ni dox ci diggante Bukki Ndangaan saan ak Serigne Ndiaye 2 ñoom ci poule A bi bokk bi mooy seen premier combat ci compétition bi ay ca ñu ngi noonu ñoom ñaari xale yi bukki ndangaan ak Serigne Ndiaye ndaysaan toog nañ mu ngi ñoom ñaar li règlement bi nangu ak li mu bañ il est dix-neuf heures ñu ngi noonu ñoom ñaar ndaysaan Serigne Ndiaye jox na loxo arbit bi jox na loxo adversaire bi ndaysaan ñoom ñaar a ngi noonu présentation yëkkati na loxoom bukki ndangaan ayca bukki ngi noonu ndaysaan général Thiaka Faye buñ noppee ñoo ciy topp arbitre baa ngi noonu di wax ak ñoom ñaar lu xew lan moo xew ah gàllaajeel la ñuy dindi Thiaka moo teel a indi ay butéelam arbitre bi sifflé na Serigne Ndiaye woon ginnaaw Bouki Ndangaan moom nga jàkkaar lool ñu ngi ci tournoi bi ba tey ndaysaan Teranga Sport moo ñu fi woo ñaari xale yaa ngi noonu Serigne Ndiaye ma ngay ngàdd bukki ndàngaan jëli tànk bi jël na ko takk na takk na takk na takk na dóor na ko ci suuf wër na ko ndomba wër na ko ndomba daan na ko Serigne Ndiaye 2 daan na bukki ndàngaan am na 3 points Serigne Ndiaye am na 3 points ndaysaan ma ngay moom Serigne Ndiaye na gaaw ma ngay tekki gàllaaj ndaysaan ma ngay tekki gàllaaj ndaysaan ma ngay tekki gàllaaj Ibrahima Kaay ndaysaan Mamadi ngi nii moomit nekk sampiyon di ndaanaan ci làmb ñu bari bàyyi ko xel ñu bari ci làmb nangu nañ xarañteem ak mën a bëreem ak fonk bis ba pare nekk sportif mu am ndam ak mu ñàkk yëpp Mamady da ngay xam ne kii sportif la dafa bëgg sport Mamady nuyu naa la. koy naa la. ñëwee tey. waaw comme ni ma doon ñëwee rek. moo gis nga noonu lañ doon ñëwee rek. dañuy préparé rek ñëw waaw. tey da nekk dix lutteurs yu ñu jël mais ku ci nekk xam na ci koy am yow yaa ngi bokk ci poule A xam nga sa adversaire yëpp lan nga koy waajee. waaw comme ni ma doon waaje leneen làmb rek waaw comme làmb la rek waaw. mais lii day mel ni comme bëre xam nga ñi nga war a waaw. pare nga leen bu baax. bu baax ñooy tase ci géew gi rek ñun ñooy tase bu làmb amee. waaw di ñaan yàlla rek mu defal ma ndam. incha allah géant laa am géant bari waaw. waaw nañ. ah. daan na ma daan naa ko. xam waaw daan daan na ma benn yoon man daan naa ko ñetti yoon. waaw. merci. Ibrahima kii mooy Toubacouta ndaysaan moom la xale yu tuddee buuru Saalum ndaysaan ma nga noonu ndaysaan mbokk ndey koy jur Toubacouta nuyu naa la fay naa noo ñëwee tey ñëw rek pour jël drapeau bi incha allah mais tey compétition bi dañoo jël dix lutteurs mu nekk loo xamante ne ku ci nekk xam nga kan ak kan ak kan ngay am da loolu dafa laaj préparation ci wàllu préparation noonu pare pare nga gaa yëpp. waaw lamb la rek lamb moom lamb la mën a doon bu ñuy ñëw dañuy pare li lamb laaj yëpp pare nañ lépp daal di ñaan yàlla moom suturaal ñu may ñu ndam ma yóbbu kàmmaa incha allah rabbi. oui premier combat koy am. Libidor. ñaata laale nañ de laale nañ man ak moom. nga muy saf xam na li ngay waaw ku nekk xam fii ñëw ñëpp nekk xam na sa morom li muy saf coolee fi nekk rek amateur yi ñooy wax nii rek mais ñun bëri xamante nañ. billaay wallaay. jaajëf gaynde jaajëf. kii mooy Bouki Ndangaan doon champion. Bouki Ndangaan nuyu naa la. waaw maa lay fay yàlla bu baax. noo ñëwee. waaw gis nga waajal affaire yi rek bilaay mais bëri naa nag waaye kii moomu daan quoi Siré Ndiaye mais sama sant a ci kanam quoi incha allah. mais compétition bi waajal ko yombu na wala métti na xam dix lutteurs yi yëpp ku ci nekk ki ngay am. non yombul yombul yombul ndax bi may ñëw ci compétition bi damaa feebar am na une am na bi mu desee quatre jours damaa sol butéel mais loolu moo tax may bëre nii comme kon si contrat jàmbur laa ne foog ma respecté ko waaw ci mun dina def bu may sox sa dinaa ñëw. yeah. bonne chance. ok merci waaw. émission bi demagul fenn. waaw incha allah incha allah yàlla ok waaw. gaynde kaay mu ngi noonu ndeysaan moom Libidor bu Grand Yoff nekk ndaanaan Tony <laughs> yaa ngi noo Libidor nuyu naa la. a mentalement fit ak jom. mais tey nga xam nga ñi ngay am ñi am. fii tey xam lu fi génne mbër fulla ak fayda ak entraînement loolu c'est après sama ñaani waajur mu fen sama ñaani waajur yàlla ma sama ñaani waajur wàllu fi yow ci foo nekk poule A bi wala poule Libi wax na ba jooy <laughs> làmb gi ndeysaan topp ko kaay Ibrahima Libi wax na ba jooy ndeysaan nee na sama liggéey nday ak sama ñaani waajur ndeysaan rek a ma topp ndeysaan wax na ba jooy la muy jooy nag moom rek ko xam ndax wolof nee na la mu saf ko ko mos rek ko xam en tout cas daal Libidor wax na ba jooy ndeysaan ndeysaan Ibrahima sama yaram daw na xale yi ay jàmbaar lañ ñoom ñëpp teral seen waajur moo leen tax a jóg siyaar naa la Fils de Balla. dalal naa ko baax noo ñëwee comme ni nga ñëw rek incha allah. dix ku ne xam na kan lay am. préparation bi dina métti. non méttiwul comme ni ñu waajee yoon ba pare rek yeneen lamb yi rek. non non noonu noonu rek la yàlla xam na ko. poule A wala B. xaw ma sax yaakaar naa poule B la su ma juumul. kan ak kan ngay am. non xaw ma kan a am nag sérieusement. waaw mais en tout cas su ma gënoon a bokkal bul tàggat fay. li mu door ak général ñëw ba. noonu laa waaw il faut fi nga bokk poul bee nga bokk maa ngi ñëw ci. ñu ñëwaat ci poul bee bi. ndeysaan. kaay. butéeli mbokk yi gis premier combat. wala ci compétition bi. muy Serigne Ndiaye ak bukki ndangaan waaye ñu ngi ci poule B bi premier combat bi ngi noonu dox ci diggante Caaka Faye ak général Malika Caaka moo la féete ndijoor ngemboo ngemb lu ñuul li général moo la féete càmmoñ ngemboo ngemb lu weex li janalaar na tey ngemb lu bees tàq la indi lan la compétition bee ko laaj tegtal la wala lan daw na jëli Caaka général Caaka Faye ndeysaan ñu ngi noonu général Thiaka fay tey li tax mu neex mooy mbër mën naa daanu sa premier komba sax te doo perte compétition bi ndeysaan moo tax tey daal làmb la ci biir làmb yi Thiaka fay général Caaka Faye général général jël na tànk bi jël na tànk bi da nga koy suruxal wala déet général takk na ko caaka bañ na général ëñ na ko da ko bëgg a bal na ko mu ngi koy gëtëng général caaka ndaysaan tàccu na général caaka général na dafa ñeme caaka fay ndaysaan moom noonu lay bëre ak moom général caaka ña ngay Caaka Faye général général Caaka kaay ni lewaat na ndeysaan ñu ngi noonu Caaka Faye moo la féete ndijoor général moo la féete càmmoñ ndeysaan ñu ngi noonu di lewaatoo ñoom ñaar Caaka Faye général ndeysaan daw na bal ko ko mu rëpp wala amu ci rëpp ndeysaan Caaka Fay général général Caaka général Caaka Fay général ñu ngi noonu ci compétition bi ndeysaan ñu ngay bëre ñoom ñaar ñëpp ay poids lañ te ñaari poids lourd ndaanaan lañ ci làmb daw na jëli ko ay saat ñu ngi noonu Caaka Fay général Caaka Fay général ñu ngi ci combat ba tey Caaka Faye général mais ñoom ñaar ñëpp ci favori yi lañ bokk ndax Caaka Faye Serigne Ndiaye 2 général Géant Bargny ndeysaan Caaka général jël na jël na ko jël na laa ilaaha illallah daan na ko général daan na Caaka Faye ndeysaan lu ma la waxoon lu ma général da koo ñeme dëggal boppam ci bëre bi ndaysaan général daan na ay supporter la indi moom doomu Malika bi ndaysaan xoolal supporter supporteru ndaysaan général Malika yi mbëri yi gën a naqaree waxal ci làmb saa yoo ñëwee di wax ak moom day bañ day concentré wu waaye nañ taxaw fii rek nañ taxaw rek xaar ndaysaan gis nga ko ma ngay sotte ko ay butéelam moom Serigne Ndiaye café làmb foowewu ko bu ñëwee day concentré wu ci bisam ne ci sotte ko ay déeba déebam ñi ko war a ngemb ngemb ko ñi mu war a àndal ànd ak ñoom bu ñëwee def fulla ak fayda ndeysaan moo tax xale yi daal ay borom yu jom lañ mais Ibrahima xoolal lee ñu ñu samp ci suuf kuur la de ñu def ci soow samp ci béjjën bi xaw ma lii lu mu doon ndeysaan xoolal baaraam bi da koy nëbb xaw da koy nëbb kenn du dara kamu ci réew ci ndeysaan Serigne Ndiaye nuyu naa la yaa ngi ci jàmm nga ñëw ci compétition ngeen nekk diis personnes dix personnes yëpp ku nekk préparé sa morom est-ce dina yomb. ci ban nga bokk A wala B. poule A nga bokk léegi daan nga ki nga xamante ni booy bukki bukki ndàngaan foo jëm. ndeysaan nga mu ngi tontu nag xel lay tontu. ndeysaan ñu ngi koy jaajëfal moom Serigne Ndiaye kaay ndeysaan loolu dama koy nangu ok arbitre bi sifflé dox ci diggante Géant bu Bargny ak euh, xale bii di ndeysaan loolu la lu xew ak Mamadou Ndiaye ndeysaan ñu ngi poule A bi encore Géant moo la féetee ndi joor Mamadou moo la féetee càmmoñ ndeysaan Mamadou nee na ma sànq ñoom ñaar ku ne xam na moroomam lu saf Géant bu bari ñi Mamadou Ndiaye Géant Mamadou Géant Mamadou ndeysaan Géant bu bari ñi Mamadou Ndiaye ña ngay bëre ña ngay bëre gala jaa ngay dagg Mamadou Ndiaye boo ko xoolee xam ni préparé na compétition bi macha allah boo xoolee masse musculaire bi xool état de forme bi xam ni Zayan daw na jàpp ko sol na ko Zayan sol na Mamadi Mamadi rëcc na Mamadou Ndiaye géant bu Bargny di Ndiaye géant bu Bargny ndeysaan Mamadou géant ñoom ñaar a ngi noonu ci compétition bi ndeysaan ba tey ñu ngi ci poule A bi Serigne Ndiaye 2 moo fa génn ak trois points ku daan fii da ngay génn ak 3 points ndeysaan avertissement pour ma Ndiaye arbitre bi sifflé waat na arbitre bi sifflé na Mamady Ndiaye Géant bu Bargny Mamady Ndiaye Géant bu Bargny faqat na ko Géant Géant mel ni kuy rëb mais day saale rek ndeysaan ñoom ñaara ngi noonu ci compétition bi ba tay waaye lamba ngi sol na sol na ko Géant da ko bëgg a jàpp sol na Mamadi Mamadi bañ combat bi du yomb Mamadi Ndiaye Géant ñoom ñaara ngi noonu ci combat bi ba tey jël na tànk ba Mamady jël na tànk ba Mamady jël na tànk ba dina ko dëj wala déet Géant Njool la déedéet du mën a jeexee noonu laay laay la laa Géant jël na ko daan na ko Géant bu bari ñi daan na Mamady Ndiaye eh Géant génn na ak 3 points xoolal ma mbooloo mi Géant indi xoolal ma mbooloo mi Géant indi ndeysaan doomu bari ñi bi daan na Mamady ndaysaan Géant bu Bargny daan na Mamady Ndiaye Ibrahima ci poule A bi macha allah sañ sa bi na de père père sañ sa de ay père pour xaan kenn warul dugg ci géew bi kenn waru koo jege arbitre bi sifflé na ndaysaan Libidor Toubacouta Libidor moo la féete ginnaaw Toubacouta moom nga jàkkaar lool ñoom ñaar yàgg na ñoo daje ñoom ñaar yàgg nañoo daje. ndeysaan Toubacouta Libidor. Libidor Toubacouta. ñoom ñaar fu ñuy mujj. lan mooy xew ci combat bi mbot wala faqat wala paqueté lan mooy xew daw jàpp na ko Libidor Libidor ndeysaan Libidor Toubacouta Toubacouta nga koy jéem a sol mu ngi koy jéem a bal ndeysaan Toubacouta nga koy jéem a bal mu ngi koy jéem a bal pour sànni ko Toubacouta Libidor Toubacouta Libidor Toubacouta Libidor ndeysaan ngi noonu Libidor Toubacouta ñu ngi ci combat bi ndeysaan Libidor Toubacouta dara xewagul Senghor ya sànni na ko moom Libidor Senghor kalla ay Senghoram wala Senghoru Toubacouta cey mbër yu ci bari ay ngemb yu bees tàkk lañ ngemboo indi moo xam mbër mu ngemboo ngemb lu ñuul moo xam ngër mbër mu ngemboo ngemb lu weex waaye bëri na ay mbër yu changé ngemb indi ay ngemb yu bees daw na jëli ko libidoor ndeysaan libidoor Libidor ak Toubacouta ndeysaan Libidor Toubacouta Libidor Toubacouta ñoom ñaar fan la ñu mujj arbitre bi àtte na avertissement Toubacouta avertissement Libidor arbitre bi sifflé waat na ndeysaan noonu ndeysaan mbokk yi bu leen fàtte premier combat bi Serigne Ndiaye 2 moo daan bukki ndangaan deuxième combat bi général Malika moo daan Caaka Faye troisième combat bi takk na ko takk na takk na Libidor daan na ko laa ilaaha illallah Toubacouta daan na Libidor Toubacouta daan na Libidor ndaysaan nee na doole nee na ponkali la soxla moom Toubacouta ndaysaan ñu ngi kottante waaye compétition baa ngi dem ba tey. saan Géant Bargny. Géant nuyu naa la. mbokki wasaare fay naa leen. maa ngi sant yàlla. waaw ñëw kon ni ma daan ñëwee rek. waaw kon ni ma daan ñëwee si compétition rek noo laa ñëwee jom fu laax fayda quoi. dafa uteeg yeneen compétition yi dañoo jël dix lutteurs. poule A poule B A bi ngeen bokk yéen cinq personnes B bi ñu bokk cinq personnes ku nekk war a préparer morom préparation bi nu muy deme non tey mooy gën a yomba sax si ñun ndax boo daan ñëw di fekk soixante quatre litres wala trente deux tey nga ñëw am dix loolu moo gën a yomb saaf saap la def. mais yow kan ak kan man Serigne Ndiaye Mamadou Ndiaye El Hadj Ousmane Thior carrière bu Bawol. waaw ñooñu laa am. daan nga naa Mamadou Ndiaye. Ndiaye mos a daje. ñoo daje. waaw dinañ daje loolu mooy yoon. dina mel ni wuure. yaa bëgg daje wala. waaw bu yàgg champion la moo tax ku ko daanul champion boo doonoon champion doo doon champion. waaw noonu la gis bëri. lu neex la ñuy bëri maa la tey waaw. bon arbitre bi noonu di waaj a sifflé dox ci diggante carrière ak Serigne Ndiaye 2 ba tey ñu ngi waat ci poule A bi carrière Bawol ak Serigne Ndiaye arbitre bi sifflé na ñu ngi leewaatoo ñoom ñaar carrière moom nga jàkkaarloo Serigne daw na jëli ko carrière bañ carrière Serigne Ndiaye dañoo nar a ñoom ñaar Serigne Ndiaye dox na ci ko am carrière daw na jëli ko Serigne Ndiaye combat bu nar neex dinañ bëre ñoom ñaar daw na jëli ko carrière rëppal na ko surxal na ko Serigne Ndiaye war na ko ndomba war na ko ndomba war na ko na ndomba carrière Serigne Ndiaye war na ndomba carrière lu def daan na ko arbitre bi atte daan na ko moom Serigne Ndiaye 2 sifle na sifle na sifle na sifle yaa ngi dem mu ngi tàkk mu gi dem arbitre bi sifle na Fils de Batlen ak général bu Malika ndeysaan général Fils de Batlen Fils de Batlen général door na ko tànk door na daan na général ndaysaan daan na Fils de Balla oh ah gaañu na way oh Fils de Balla gaañu na waay oh Fils de gaañu na waay oh, général daan na Fils de Balla ndaysaan ndaysaan dem na général dem na mu ngi koy xool ndeysaan dem na mu ngi koy xool général am na ñaari ndam ndeysaan général Malika daan na daan na Fils de Batlene ndeysaan Fils de Batlene a ngi noonu ci diggi géew bi Ndeysaan ma nga noonu ci digg géew bi moom Fils de Batléne mu ngi noonu ci digg géew bi Ndeysaan Fils de Batléne a ngi noonu ndeysaan mu ngi koy xool moom Serigne Ndiaye 2 ndeysaan ma ngay laaj ñi ànd ak Fils de Batlem ndeysaan mu ngi koy xool ndeysaan saan de Batlem a ngi noonu ñu ngi koy génnee ndeysaan tey lamb Serigne Ndiaye ngay yëngu ndeysaan ma ngay yëngu moom Serigne Ndiaye <laughs> laay laay la la compétition bi ndeysaan ma ngay tàllal loxo ca kaw moom Serigne Ndiaye ndeysaan ma nga noonu moom Serigne Ndiaye de daa bëgg a yëngu. fi mu toll lépp ngay dajale téye nga xam ne booy wax da ngay am looy wax waaye la nag wax yow yaa ngi daan sax woo sa victoire ci attaque bi Ndaysaan bukki ndangaan ak Géant bu Bargny maa lay siyaar daa arbitre bi sifle waat na ñu ngi ci compétition bi ci wàllu poule A bi ndaysaan poule A bee ngi noonu Bouki Ndangaan ak Géant bu Bargny bukki Ndangaan Géant Géant bu Bargny ndaysaan léegi moo moo daan moo daan Libidor moom Géant bu Bargny arbitre bi ngi wax ak bukki ndangaan Serigne moo ko daan war a defaat deuxième combat am ci compétition bi Géant bu bari war a defaat deuxième combat am aussi ci compétition bi Serigne Ndiaye 2 am na six points ndaysaan bukki ndangaan zéro point Toubacouta am na moom it trois points ci poule B bi la bokk waaye nañ dem ci diggante Géant bu Bargny ak Bukki Ndangaan ndeysaan ci wàllu poule A bi trois défaites la am Bukki Ndangaan dafa daanu Libidor dafa daanu carrière bu Bawol dafa daanu loolu mooy trois défaites yi mbëri yi mbëri am Mamadi Ndiaye aussi dafa daanu kon Serigne Ndiaye moo am deux victoires moom Serigne Ndiaye ndaysaan Géant bu bari ñu am benn victoire ndaysaan bi mooy deuxième combat Géant bu bari ñi ndaysaan Bouki Ndangaan Géant arbitre bi sifflé waat na Géant bu Bargny Bouki Ndangaan Bouki Ndangaan moo la woon ginnaaw Géant nga jàkkaar lool ndeysaan poule A ak poule B bi Bouki ak Géant bu Bargny Bukki Ndangaan ak Géant bu Bargny ña ngay bëree jël na tànk bi Géant jël na tànk Bukki Ndangaan Géant jël na ko wicci na ko do na ko ndomba ci suuf Bukki bañ na Géant daan na ko Géant bu Bargny daan na Bukki Ndangaan six points pour Géant ndeysaan six points pour Géant Géant bu Bargny six points ndeysaan deux combats deux victoires Bouki Ndamba Ndangaan deux combats deux défaites Serigne Ndiaye deux deux combats deux victoires ndeysaan bi sifflé na deuxième combat baa ngi noonu ci wala deuxième combat poule dox ci diggante Libidor ak Caaka Fay Libidor premier combat am daf ko ñàkk Caaka Fay premier combat am daf ko ñàkk ñoom ñaar faw am ku ci am trois points am ku ci perte ndaysaan Libidor Caaka Libidor Caaka Caaka Fay Libidor mbokk yi Caaka Fay moo la woon ginnaaw Libidor nga jàkkaar lool ndeysaan ñu ngi fii ci arène nationale Teranga Sport moo ñu fi woo ndeysaan tegal xale yi 6 millions xale yaa ngi noonu ndeysaan benn combat benn combat la ñu ko def ku bëre génn da ngay dem ma ngay wis ndeysaan ñu ngi noonu ña nga noonu ndeysaan waa côté bee ñu ngi daw moo lay woon ni ma ngay taw fële ndeysaan gaa yaa nga noonu mbër yaa ngay bëre muy taw mbër yaa ngay bëre muy wis ndeysaan Ibrahima nañ tuxu kaa ñu yëg ci kaw xoolal arbitre bi sifflé waat na Libidor Caaka jàppante waat nañu rocc tàqali ko ñu ngay bëree Libidor daw na jëli caaka moytu na jàppante nañu ñoom ñaar waaye ñoom ñaar kenn jàppantewul jàppante bu sotti làmb ji caaka libidoor ñu ngi ci combat bi caaka fay libidoor caaka libidoor caaka libidoor ndeysaan caaka fay libidoor da laa ilaaha illallaah caaka daan ko caaka plaqué na daan ko Libidor deux combats deux défaites mbokk caaka fay am na trois points combat bu njëkk da koo ñàkk diggante ak général bu Malika. Ndeysaan Libidor combat bu njëkk da koo ñàkk diggante ak Toubacouta deuxième combat mu am caaka fay ñàkk kon actuellement Serigne Ndiaye génn na am na deux victoires deux komba Géant bu Bargny am na deux combats deux victoires Mamadou Ndiaye premier combat am da koo ñàkk bi mooy deuxième combat am ñu xool ñoom ñaar fu ñuy mujj ndeysaan ndeysaan Mamadi Ndiaye Serigne Ndiaye ñu ngi leewaatoo Mamadi Ndiaye moom moo la jàkkaarloo Serigne Ndiaye moo la woon ginnaaw Serigne Ndiaye Serigne Ndiaye Mamadi Serigne Ndiaye daa mel ni daa am na lu lu ko dal ndeysaan ndeysaan ñu ngi noonu Serigne Ndiaye Mamadi Serigne Ndiaye Mamadi Serigne Ndiaye 2 Mamadi Ndiaye ndeysaan Serigne Ndiaye 2 Mamadi Ndiaye ñu ngi ci combat bi Mamadi Ndiaye Serigne Ndiaye ña ngay bëre ñoom ñaar Serigne Ndiaye dopp na ko jege nañ saaku yi Mamady nag ndaanaan la ci làmb ndaysaan mais moo jiitu Serigne Ndiaye ci làmb moo ko expérience ci làmb Serigne Ndiaye daw na dajeeg moom Mamady Ndiaye jël na ko génn nañ saaku yi arbitre bi bàyyi na mu continuer ñu ngi bëre ñoom ñaar ñu ngi bëre Serigne Ndiaye ngi koy wër pakete na ko bi bañ na woo na leen ci digg géew bi lépp fii lay leeree Serigne Ndiaye Mamadou Ndiaye ku daan sa morom na sant Joxumpa wala Jóob wala beneen sant loolu dafa leer Serigne bët bi am na suuf arbitre bi nga waaj a sifflé ñoom ñaar Serigne Ndiaye 2 Mamady Ndiaye Serigne Ndiaye mbokk mooy troisième combat ci compétition bi Serigne Ndiaye am na six points poule A bi bu daanee combat bi day am neuf points Mamady Ndiaye premier combat am dafa ñàkk bu waaye ku ci am deux défaites da ñàkk compétition bi ndax sa chance dootul bëri ndax poule bu nekk ñaar moo fay génn ñettay toog suñu noppee def demi-finale finale ndaysaan Géant bu Bargny moom qualifié ndax am na deux combats am deux victoires Serigne Ndiaye am na deux combats am deux victoires carrière bu Bawol Serigne Ndiaye daw na jël Mamadi Mamadi Ndiaye rëccaat na ñu ngi bëre Serigne Ndiaye deux cey làmb déggal ma rek ñëwal one two three four maa la ko wax ndeysaan Mamadou Ndiaye Serigne Ndiaye ñu ngi ci combat bi luy xew ñu ngi leewaatoo dara xewagul mais mbër yaa ngi taxaw ci bunt bi di xaar maa la ko wax ay rëj rëj gi cakit cakit ay waay rëj rëj gi git ndeysaan lamb dongoy lamb lamb cosaan la arbitre bi àtte na avertissement Serigne Ndiaye 2 avertissement Mamadou Ndiaye Serigne Ndiaye am na benn Mamadou am deux ndeysaan ñu ngi noonu ci compétition bi ñoom ñaar Serigne Ndiaye daa bëgg a jeexal combat bi Mamadou daa pànk ni muy bëree Mamadou ni muy wul Serigne Ndiaye ngàdd na ko dóor na ko Mamadou Ndiaye dóor na Serigne Ndiaye trois avertissement disqualifié nañu am na ndam ci kaw Mamadou Ndiaye ndeysaan Serigne Ndiaye am na ndam Mamadou ngi aalu mbokk yi Serigne Ndiaye 2 na demi-finale Mamadou Ndiaye ko dóor dernier combat bi ñu disqualifié kii di Mamadou Ndiaye jox Serigne Ndiaye 2 victoire bi kon Serigne Ndiaye qualifié na demi-finale Géant bu Bargny qualifié na demi ci poule A bi kon Géant bu Bargny moo génn ak Serigne Ndiaye 2 Toubacouta laay laay lala jël na ko jël na ko général jël na Touba Toubacouta rëcc na ña ngay bëree Toubacouta général Toubacouta général ndaysaan général Toubacouta ndaysaan général Toubacouta ña ngay bëree général Toubacouta ña nga ca combat bi général Toubacouta ña ngay bëree mbot laay laay la laa général def jàpp na ko jeex na général daan na Toubacouta général am na trois points trois combats général trois victoires ndaysaan général qualifié na ndaysaan ñu ngi noonu arbitre bi ngi waaj a sifflé arbitre bi waaj a sifflé arbitre bi sifflé na ndaysaan bukki ndangaan ak carrière bu bawol bukki ndangaan def na am deux défaites carrière bu bawol sortem bu njëkk da koo ñàkk diggante ak fii ndaysaan kan lay am Toubacouta ku muy am Géant bu Bargny lay am wala wala kan ndaysaan Géant Bargny Serigne Ndiaye numéro 2 ñoo war a bëre Géant Bargny Serigne Ndiaye 2 mbokk yi suba fii ci arène nationale Jam Production moo ñu fi woo grand combat bi dox ci diggante Fisto Balla nekk école de Balla Gaye war a bëre Goro Sock Jàmbaar Academy waaye yamu ci da cee jël Jokkel bu Fatick ndaysaan nekk doomu Fatick nekk doomu Kër Massar mu boole ko ak Kéwél bu Bawol nekk doomi Bawol nekk doomi Medina ndaysaan yemu co mu jël Boy Zil nekk école de lutte Fallaye Baldé boole ko Moussa Dioum 2 nekk Jambar Wrestling Academy mbokki combat yi suba lay am fii ci arène nationale lamb ju neex lamb joo xamante ni suba 100 pour cent géejawaay gépp dinañ dugg si waaye 100 pour cent parcelle gépp dinañ dugg si ndaysaan ñu ngi noonu ci combat bi Géant bu Bargny mooy romb noonu san ñu ngi noonu arbitre bi sifflé ak bukki arbitre bi siflé waat na bu kindangaan carrière bu kindangaan Ndeysaan ñu ngi noonu. combat baa ngi noonu. daw na jëli ko waaye combat baa ngay bëgg a yàgg. Ndeysaan Géant mooy rombaat noonu ndeysaan ndeysaan waaye mbokk yi ñu ngi félicité Modou Lo le roi des arènes ci discours bi mu wax jëme ko ci làmb ji waaye jëme ko ci Balla Gaye 2 mbokk ñuy félicité bala Gaye bu baax moom it ci discours bi mu wax jëmale ko ci mbërëm fils bala waaye jëmale ko ci parcelle loolu mooy làmb xale fa faw ngeen roy loolu mën ngeen a xas-xasoo waaye bu ngeen waxante lu ñaaw Balla gay 2 wax na Modou Lo te waxu ko benn wax bu déplacé wu ndax wane na ni kilifa la responsable la te du te Balla Gaye du n'importe qui ci làmb Modou Lo wane na ni moom it aussi kilifa la responsable la te du n'importe qui ci làmb moo tax nañuy xoolaat bu baax ci xale yi di jàng ci ñoom waaye Balla yaag Modou benn kàddu rek laa leen di dégg mooy kuy wane yoon saa su ne warul teggi yoon ndeysaan warul teggi yoon ña nga noonu ndeysaan Balla Gaye 2 suba dina ñëw ci stade bi waaye Papa Sow kenn demul mu des moom it nee na maa koy yanu andi samay rak tripier bi nag bu leen jaawale maa koy laal moo tax Ibrahima daf maa bëgg a dóor sama caméraman bi génn nañ saako yi kaay leen ci digg géew bi daa bi jeex na mi taa ndeysaan ñaari xale yaa ngi noonu diggante carrière ak bukki ndangaan ñoom ñaar nan dañuy sauver waaye ñoom ñaar ñëpp perte nañ compétition bi carrière nag bu woon combat bi am na ñaari ndam beneen combat bi mu bëre ak géant bu bari ñi am ci ndam mën na cee génn Bukki Ndàngaan nag ñaari sorti la def ñàkk ko kon mënul yomb ci moom mënul yomb ndeysaan ñu ngi noonu di leewtoo ñu ngi noonu ndeysaan bukki nangaan ak bu bawal bukki nangaan bu bawal bukki nangaan carrière bu bawal bukki nangaan bu bawal ndeysaan combat bi warul yàgg. combat bi bu rek. day yàggal compétition bi. faw am ku jël risque bëre ku ñàkk-ñàkk ku am ndam jël ànd ak say mbokk ñibbi ndeysaan ñu ngi noonu bukki ndangaan ak bu bawol bukki ndangaan carrière ñu ngi ci combat bi bukki ndangaan ak carrière bukki ndaysaan bukki ndangaan ak carrière arbitre bi àtte na ah waaye da ngeen war a bëre xaar leen laay jox mu reporter ma làmb ndax moom it bu leen fàtte promoteur la jeex na jeex na jeex na Géant bu Bargny Serigne Ndiaye arbitre bi ngi waaj a sifflé Serigne Ndiaye bu Bargny ndeysaan ñu ngi ñoom ñaar mus ñoo laale arbitre bi sifflé na ñu ngi leewaatoo Géant bu Bargny Serigne Ndiaye bi mooy seen premier combat ñoom ñaar ndeysaan Serigne jël na ko Géant bañ na dañuy bëree Géant daanaan la dagg na ba ndeysaan dagg ko ndaysaan kiwi saar ba la xot cey Zaya ndaysaan làmb la bëgg naa lii ci xale sooy bëre lu la làmb ji laaj defal loolu Zaya bu bari xëcc na Serigne Ndiaye léegi Serigne Ndiaye jëlaat na Zaya ndaysaan Zaya néewul doole macha ni mu toll doole ji ëpp na lool Serigne na ko Géant day bañ day bëree day saan <laughs> laay laay la la Serigne Ndiaye ëñaat na ko Géant bañ na Géant bu bari ñi ak Serigne Ndiaye forcé na wala déet forcé <laughs> ndeysaan ñoom ñaar a ngi noonu Géant bu bari ñi bal ko bal na Serigne Ndiaye xëcc na ko Serigne Ndiaye Géant mënul yomb Géant jëli na ko jëli na ko jëli na ko Serigne Ndiaye bañ na laa ilaaha illallaah eh! amateur yi daan na ko Serigne daan na Géant bu bari ñi ndeysaan sàcc na daan ko Serigne Ndiaye de bu bari

général am na ñaari combat deux victoire kon général mbokk yi am na six points ndaysaan ci poule bi poule bee jël na ko général jël na libidoor jël na ko général jël libidoor ndaysaan ma ngay bëre général libidoor général libidoor ña ngay bëre général libidoor général libidoor li nga maye mbaa bariwul Général Libidor Général Libidor ndeysaan ñu ngi noonu jël na ko jël na ko jël na ko Libidor Général Libidor Général ñu ngi bëre Libidor ñoom ñaar ku ne sëq na ci geño Libidor général Ndeysaan Libidor général Ndeysaan Libidor général ndeysaan ñu ngi ci combat bi ba tey ndeysaan jongale ko mu bañ Libidor général avertissement pour Libidor arbitre bi sifflé waat na ñu ngi lewaatoo ñoom ñaar Libidor général daw na jëli ko Libidor général laa ilaaha illallah ñu ngay bëre dara xawagul Libidor général Libidor général Libidor général Libidor général Ndeysaan gisuma sama waaja la grand saltige caajaay Cheikh Bamba général lu la neex am na tey ci arène nationale waaye gisuma la li traditionnel rek la bëgg buy ñëw ci lit simple dootul am sago moom saltige caajaay Cheikh Bamba général nee na ma jiili ma ne ko naam mu ne ma presse bi bari na lool waaye li nga ma sañ a def yow dong yaa ko sañ ma ne ko sëñ bi da baax da woyof da bokk ñëpp njaboote Cheikh Bamba général saltige caajaay yàlla na sa jàmm yàgg yàlla na yàlla wéral xam-xam bi guddal fan wéral cëri la grand saltige caajaay di nuyu waa kër ga yëpp ndaysaan ña Libidor général Malika général jël na général jël na général jël na général jël na général jël na laay laay la laay yegg nañ suuf léegi na jeex na jeex na wala déet jeex na général daan na Libidor général daan na Libidor ndaysaan général bu Malika trois combats trois victoire général Malika trois combats trois victoires ndaysaan ndaysaan ndaysaan coow li mënul ñàkk gaa ngi wax ak ndaysaan Tony ndaysaan làmba ngi noonu tension bi mënul ñàkk ci làmb la bokk coow li daa mënul ñàkk Tony ngi noonu ndaysaan ñu koy calmer ndaysaan magam xaritam doomu nday mooy bëree muy Libidor ndeysaan ñëwul tey ci compétition bi Tony li ngay lii Libidor di dund xam nga ko dem nga drapeau chef de l'État Kaolack ñëwoo nga dem Diourbel dernier moment nga ñëw Tony kon bu Libidor ñëwee tey ci compétition bi bëre ndaysaan trois sot trois défaites àndal ak moom dem te xam ne loolu làmb la ci làmb la bokk ndaysaan Libidor a ngi ñëw ci moom xoolal Tony ndaysaan mënu koo xool mënul xool Libidor mbokk ndey koy jur ndaysaan mënu koo xool waaye lii ak làmb ñoo ànd ndeysaan xool ko xool ba jeex na ñu ngi koy calmer mais mënul boppam bu sañoon àbb ngéem dugg ci géew bi waaye tey loolu mënul nekk Tony bu leen fàtte mos naa bërëg fii général Malika daan ko moom Tony mi waaye gis nga tey daan na général daan na sa leet naa daan na sa daan na sa lépp Tony muñal ndeysaan muñal arbi bi sifflé na ndaysaan dox ci diggante carrière ak Mamady Ndiaye Mamady Ndiaye am na deux combats deux défaites ndaysaan Géant bu bari ñi moo ko daan ak Serigne Ndiaye deux mu am carrière carrière am benn défaite ak benn match nul ndeysaan ñu xool ñoom ñaar fu ñuy mujj Mamady Ndiaye ak carrière Mamady Ndiaye carrière ñu ngay bëre Mamady Ndiaye carrière ndeysaan ñu ngi noonu Mamady Ndiaye carrière ñu ngi ci combat bi ñoom ñaari xale yi njaay Ndiaye carrière ndeysaan ñu ngi noonu ci compétition bi Mamady njaay carrière fu ñuy mujj ñoom ñaar maam Ndiaye carrière Mamadou Ndiaye carrière Mamadou Ndiaye carrière Mamadou Ndiaye carrière ña nga ca combat bi ñoom ñaar Mamadou Ndiaye jiital tànk càmmoñ carrière jiital tànk ndeyjoor ñu war a laale ñoom ñaar Mamadou Ndiaye carrière tey ñaari xale yaa ngi noonu Mamadou Ndiaye carrière arbitre bi àtte na kaay leen yéen ñaar arbitre bi sifflé waat na Mamadou Ndiaye carrière ñu ngay bëre ñoom ñaar congo amagul dara amagul ndaysaan ak bukki nangan bukki nangan daw na jëli Mamadi Mamadi sërëxal na ko wër wër na ko ndomba Mamadi wër na ko ndomba Mamadi wër na ko ndomba Mamadi daan na Mamadi am na deux victoires ak benn defet moom Mamady Ndiaye am na deux victoires benn defet wala deux défaites deux victoires Mamady Ndiaye Serigne Ndiaye deux da koo daan ndeysaan ak carrière bu bawal carrière fi ni bu daanoon Géant bu Bargny mbir mi day compliqué ndax Mamadou Ndiaye mu ngi tuus bi di xaar waaye bu Géant daane Mamadou Ndiaye day ñàkk compétition bi ndaysaan Géant bu bari xoolal Mamadou ni muy xoolee ndaysaan Géant bu bari Géant jàpp na ndaysaan ma ngay ronu ci suuf Géant bu Bargny ndaysaan ak carrière bu Bawol ndaysaan mu ngi noonu mu ngi noonu ndaysaan sargal docteur Alioune Sarr ancien président ndeysaan ñu ngi noonu de la CNG de la Ligue sénégalaise la ñu sargal foofu institut bi dama jóg tegal tekki ko quatre millions de francs CFA maa nga institut bi dama jóg rek ci parfait le 17 et 18 jàppante nañ ba tey carrière bu bawal ñanika production ak Zoya Bargny dana waxtaan naa nga ak tegal tekki 18 def ñu ngi noonu ndeysaan ñu ngi noonu ndeysaan Zaya jàpp fi mu jàpp baax na rëcc na fàqat na ko. bañ na. fu ñuy mujj. armi bi suuf la. daje léegi dans la presse les TV-TV la presse sénégalaise invite annuellement ba tey Géant Bargny ak carrière bu bawal ñu ngi ci combat bi. Géant Géant carrière. mu ngi noonu.

poule B bi tamit poule B bi tamit compliqué na de jël na ko jël na ko jël na ko jël na ko Géant jël na daan na Géant Bargny daan na Géant Bargny daan na ndeysaan yëguñu ko sax dañ koo yëg yëguñu ko sax waaw Kouta bi nag ku daan da génn demi final ci poule B bi ndaysaan mooy poule bu nekk deux mooy génn kon poule B bi Mamady Ndiaye ñàkk na ci poule A bi la bokkoon moom Mamady Ndiaye ñàkk na ndaysaan moom poule A la bokkoon ñàkk na moom Mamady Ndiaye ndeysaan carrière bu bawol moom it ñàkk na ci poule A bi la bokkoon bukki tamit ñàkk na ci poule A la bokkoon kon poule A ñaar ñi génn mooy Serigne Ndiaye 2 ak Géant bu Bargny ñu ñëw ci poule B bi ndeysaan kii di Fils de Batlan dañ ko disqualifié ndax dafa am blessure ci combat bu njëkk digganteem ak général bu Malika deuxième combat muy Libidor moom ñaari trois combats mu def yëpp da ko perte moom Libidor kon mu des si diggante général Malika mi jël première ci poule B bi ak Toubacouta mi nga xamante ne mooy laale nii ak Caaka Fay ñoom ñaar ku ci génn qualifié nga yaa jël deuxième ci poule B ay ca ñu xool ñoom ñaar fu ñuy mujj ñu ngi leewaatoo Toubacouta Caaka Fay Caaka Fay Toubacouta ndeysaan Toubacouta ak Caaka Fay daw na jëli ko laay laay la laa Toubacouta wër na ko ndombo wër na ko daan na Toubacouta daan na Caaka Toubacouta daan na Caaka laa ilaaha illallah daan na ko jël bu rëy mbokk yi kon Toubacouta ak Serigne Ndiaye ñoo war a daje ndeysaan ñoo war a daje ci demi

noonu ñaari demi-finale yi ci wàllu poule A ak B Serigne Ndiaye moo génn poule A moo nekk tête euh, tête de liste moom moo génn ak quatre combats quatre victoires am deuxième am deuxième bi génn ci poule B bi muy kii di Toubacouta poule B euh, kii di général Malika moo fa génn moom it aussi avec moom it quatre combats quatre quatre victoires bi sifflé ndoodo ñoom ñaar mu am deux deuxième bi ci poule bi ñu ngi noonu diggante Toubacouta ak Serigne Ndiaye 2 jàppante nañu Toubacouta Serigne ngay bëre Serigne Ndiaye ramassé na ko daan na ko Serigne Ndiaye 2 daan na Toubacouta Serigne Ndiaye 2 dem na final laa ilaaha illallah ndaysaan Géant bu Bargny ndaysaan Géant génn na ndaysaan génn na moom Géant dafa gaañu ndaysaan dafa gaañu te nanguwul ñàkk a bañ a bëre ndaysaan Géant bu Bargny génn na ñàkk na moom Géant bu Bargny ndaysaan Serigne Ndiaye 2 Serigne Ndiaye 2 dem na final ak général bu Malika ndeysaan Serigne Ndiaye 2 général bu Malika Serigne Ndiaye 2 général ñoo finalu final bi la ñu toll gàllaaj yeeg xarfa xuufa yeeg woote téléphone yeeg yëpp ay yëm kuy woote woote ndeysaan ñu ngi noonu ndeysaan ndeysaan Ndeysaan ma nga noonu. ayca général ñëw leen ñëw leen ñëw leen yàgg na. am round d'observation Serigne Ndiaye ndeysaan général sol na ko sol na Serigne Ndiaye ci final bi Serigne Ndiaye mot na ko dañuy bañ ñoom ñaar ay ñaari ndaanaan lañ Serigne daan na eh! Serigne Ndiaye jël na final bi Serigne Ndiaye ndeysaan waxtaan ak jël na final bi ci kaw général bu Malika daan na ko ndeysaan Serigne Ndiaye 2 daan na mbokk yi Serigne jël na compétition bi ndeysaan jël na ko moom Serigne Ndiaye gis nga ko dem ci cimikaay général Malika bi ndeysaan lii mooy sport lii lamb warul tàqale daa war a boole ñu ngi encouragé bu baax général Malika xool ko ndeysaan ma nga noonu général jàmbaar nga ndaanaan nga champion nga boo bëree ba yegg si final am Serigne Ndiaye deux mu daan la démérité woo ndaanaan nga ci làmb général félicitations à Serigne Ndiaye deux mbokk yi di jox dig daje ba ëllëg ci beneen xew-xew làmb jërë ngeen jëf.